góor googu la ñuy dàkkantele alcheikhul akbar wal kibritul ahmar wal qutbul azam wal humaamul afxam al alimul ilm ahmad ibn muhammad tijani abil fayd samarani abil abbas radiallahu anhu wa ardah fii ngeen di gis mbokk yi fi la xam-xam ak wilaya fekk baax fii mooy madinatu faas bi nga xam ni bokk na ci bërëb yi ñu gën a ràññee ci civilisation bu islaam ci ay sororam ak ay universitéem bi nga xam ni moo ci gën a siiw bii ñuy wax jaamiatul qarawiyin ci ay paleem yi nga xamante ni buur yee ko moomoon marché yi nga xamanteni dafa neexoon lool ak mbedd yi nga xamanteni ni na képp ku fa mës di jaar bokk na ci ñooñu nga xamanteni jaar nañ ci mbedd yooyule ak sayid cheikh ahmed tijaani sharif il fatimi ki nga xamante moo sos tariqatul ahmadiyya at tijaniya radiallahu anhu ñeenteelu maamam mu tukki fële ca dëkk bu ñu wax nabba boori asfi wutali aynu mab yi ci désertu penkuk aljazair maanaam algérie mu daldi fay jël ab soxna ci benn giir bu ñoo tuddee at tijaan ca goroom yooyu le foofu la soso foofu yi tamit la ki nga xamante ni mooy Cheikh Ahmed Tidiane Sharif soqi ko atum mille cent dëppook atum mille sept cent trente-huit miladiya lenn moo nekkoon yitteem moom cheikh mooy teewee jotaayu xam-xam boo xamante ni dana fa duyee lu muy jagale teyam ak it lu mu waajalee ëllëg boobu fekk na faas di bërëb bi amee jotaayu xam-xam yooyu ay boroom xam-xam ay buur yu nga xamante ni lenn moo leen ñor muy xam-xam mën nañu ko méngale sax suuf su nga xamante ni loo fa ji mu nangu ba ci sa wàllu yàlla cheikh mujj na fépp fu mu dégg jotaayu xam-xam yooyu le na ko ngir bëgg gi mu bëgg xam-xam kër gi ngeen gis mbokk yi fi la cheikh mujj dëkk ci Sulaiman ki ñu wax Mawla suleyman moo ko ko darul kër gi nga xamanteni ñu ko xamé ci turu darul maraya fofu la cheikh mujj dëkk xam ngeen ni mbokk yi fu nitu yalla mësa dëkk na ku melni cheikh Ahmed serigne fil Fatimi dana mujj doon bërëbu xam-xam bërëbu jaamukaayu yàlla ba mujj na sax ñu tabax fa ab zawiyatu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ci atum 1800 zawiya bangok ba tax na képp ku ñëwati ci jamono ngay boroom xam-xam bu gëm yàlla mbaa ngay buur bu ragal yàlla dangay jéem a féttali sa kóllëre ci cheikh jaare ko ci fonk këram gile ba ci jamono amirul muuminiin digel ni nañu yeesalaat kërug cheikh gile moo tax nga déglu woykat bi di wax naan wama xubb diyaara shagaf na qalbi walakin xubb man sakana diyaara léeg-léeg mbokk yi nga romb ab miir di ko fóon ñu naan ndeke xel ma dafa dem waaye moom moomule xam ni xel mi demul ki dëkk ca kër ga naam fàddu waaye ba fi loo xamante ni kenn du ko fàtte ba jonnu yàlla tey jii ay sëtam yi ko donn ci jamono di wéyal mission bi fa tabarakallahu ñu def journée tudde ko السيد أبو العباس الشيخ أحمد التيجاني الشريف الفاطمي nekk journée boo xam ni porteem ki ñu xam batin ëpp na waa kaw suuf waaye nag comme waa suuf jëmm lañu mën a gis kon ñu yemale ko bokk ci jëmm yi ah waaye nag malaa'ikullahi laa ziltum min alkurama xaffat bi jamcikum tuuba liman tabaarakallahu daje yiw yu mel nii moo waral lool ñuy nuyu nag bépp jullit bu fi teew ak foo mën bokk ci turut yi boo dee tijaan boo dee murit boo dee xaadir boo dee layen ñépp ñu ngi leen di nuyu di gërëm ñépp ci seen teewaay kon dafay laaj ñu xam cheikh ahmed tijani ndax dafa nekk naaru faas rek wala leneen bu fekkee ni leneen la la mu bokk lan bu fekkee ni da ngeen ni nitu yàlla la lan mooy nitu yàlla bu dee dafa am tariqa ndax tariqa ku mu neex nga sosal ko sa bopp wala tariqa dafa am fu muy jaar bu ñu waxee lii ba noppi nag point bu ñu yegg si ngeen jëli cheikh natt ko foofa bu ko matee ñu xam bu ko matul ñu xam mu mel ni bala ngay ñëw ci tariqa mooy lan nga ñaaral fi nekk diine ak tariqa diine sharia ko régir tariqa xaqiqa ko régir yonent bi moo wax ni jibril ñaari yoon la ko yàlla yónni ci moom benn bi officiellement la benn bi officieusement la bu officiel bi ci la wàccee ci moom sharia القرآن ديكو إندي نار فكي عتك العام للعام والخاص للخاص با القرآن جيخينك لمند ما جيخنك باطن القرآن ورنيو ميخي yonent bi neena bam ko ëndee tama xam ni jullit yi seen ñor yeggu ca كان كدنك علي بن أبي طالب نيكو ندخ فنيكو يسخلا يو لاي تولوك سخلاف لولو تخ سيدنا علي مون دنك حقيقة با لتخ جلي بير يننتي بي بايم القرآن ينيم سي بي الله كتك جبريل إني سيتي سي يننتي بي القرآن يلا كتك يبل جبريل مو إني سيتي بي نحمي القرآن القرآن كان إنا أنزلناه في ليلة القدر بي القرآن يوي بنبينك القرآن كتيم موي كرندي موتاح موي شريعة يونتي كتيم mooy kër baay moo tax muy xaqiqa am ñoo xam ne dañoo dugg si ci ñu dugg cadre sharia ak alquran moo indi al madahibu al arba ta shafii ñëw abu hanifa ñëw abu hanbal ñëw imam malik ñëw ñoo ñu côté kër ndey lañu lañu dugg tak fa ay jabar جبرية مذاهبي ينين يو دقوب نكر باي مي حقيقة تكفى اي جبر لولو تخطرق ينو شادلي ينو سنوسي ينو قادري ينو التجاني ينو اكي ينين دينانشي ينو mu mel ni nag ñaar ñooñu ñaar ñooñu nag bu ñu toppee seeni maam mooy li ma leen wax ni yonent bi xaqiqa sayidna ali la ko jox lu tax yonent bi moo wax ni moom leeram ak leeru sayidna ali la yàlla waajala do bosam jaari fa mu jaar ligne directe la ba mu génne ca Abdullah Ali ibn Abi Talib bosam jaar fa mu jaar indirect la ba génne ca Abu Talib yàlla bëgg nag ñaari leer yi àndaat moo tax mu fexe ba ñu jël Fatimatu bintu Rasul may ko Ali ibn Abi Talib pour ñaari leer ya dajawaat ñaari leer ya jur asana ak kii mooy maamu Abdul Qadir al Jaylani kii mooy maamu Cheikh Ahmed al Tijani kon mbokk yi xam ngeen ni iliman ji ñëpp a naw ci walu askan waaye nag ku ci nekk sa tariqa dégg nañu tur bañ ko tuddee ñu ngi dégg ab tariqatu tijaaniya waaye ci histoire bi ñu liree ay page am dégg nañ ci yeneeni tur tariqa cheikh ahmad Tijani sharif radiallahu taala anhu dañ koy koy dàkkantale wante tariqa bi mu ngi tudd al tariqa al ahmadiya tijan gi nak liko ci indi moy cheikh radhiyallahu taala anhu quartier bi mu dëkkoon ci fas mo tuddu tijana motax ñukoy dakantele ahmad at tijani lolu motax sah, sax yeen sama mbokk warna yi war nañ ci jangal nit ñi baat bi niñ koy waxe parce que du tijan amul ya tijaan bi ba li ñu doon liggéey lii seen métier mooy buur bu falu mbaxana mi ngay sol ñoo la koy defar loolu moo tax te mbaxana boobu mu ngi tudd ci arab ak taaj kon karce ba ñuy defaree taaj bi moom lañ tudde tijaani moo tax ñu tudde ko cheikh ahmad at tijaani waaye te tariqa bi nag tariqa ahmadiya la te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga li am solo mooy cheikh ni mu organisé tariqam ak ay werdam ab tariqatul ahmadiyatul muhammadiyatul ibrahimiyatul hanifiyatul tijaniya lu tax mu tudde ka ab tariqatul ahmadiya ne ah moom noonu la tudd te tariqa yëpp seen borom lañ koy tudd cheikh ni mukk هناك طريقة الشكر والحمد وده الطريقة العملية كنتي انك تد منولو ام حمد لك سيدا تلسبق نينكو الطريق نينكو المحمدية نينكي يننتي بلا دل مني داكور وي يننتي بلا ميم ادم دل ميم دل muhammad yeg yépp loolu la ñaar ñee beru ñaar ñii beru miim adam nden maha allahu bihi lkufra waltalaq miim deel مد به الإسلام والنور مدى طريق الشيخ ناري لبوالحي ku nekk ci biir waratuloo mën a weddi yàlla ku nekk ci biir waratuloo mën a nekk ci lëndëm la ca des nag moo di salaatul faatixi ak jawharatul kamaal parce que istigfaar bi ak laa ilaha illa allah istigfaar bi mooy détachement la ilaha illallah moy coton bi ngay jëlee détachant bi ci bi dafa wax kep ku def salat su ci mom te bolé wo ci taslim dañuy téye salaatu bi ba taslim bi ñëw mu soga jàll waya salatul fatiha amul taslim lutax te ci cadre tariqa dañ lay wax ni la jawhara mom ba la ngoy jàng am njàpp bo amul japp kon fof ko def salatul fajr mu melni kon jawhara ëpp te jawhara am taslim ta salatul fajr am allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya taslim ba dugg ni salaatul fatih allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughliqa والحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلى في عمله لطح يننتي ببمي تسليم بوبني نتتخ فصلاة الفاتح يلاك وخلفكم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما وضع ويقاتل ما صلى على الاخلاق اليقين te jawhara nak cheikh ko demander defal ko boppam اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية واليقظة المتحققة الحائقة بمركز الكون والقرآن ونور الأكوان المتكلمة الأدمي صاحب الحق رباني البرق الأسعد مدري أرباح الملاك لكل مطار من البحور والأوان ونريك اللعب الذي ملأت به كرك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها وروح الحقائق عين المعارك الأطهر صراطك التام الأكثر اللهم صل وسلم على سراج الحق بالحق الكنز الآدم إفادتك منك إليك إحاطة نور المتلسم صلى الله عليه وعلى آمين صلاة تعرفنا بها تليكوي أتموي إن الله وملائكته يصلون على النبي ما ويسلمون عليه يصلون على النبي لك موت الصلاة الفتح أم التسليم وإن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا رضاك كنيوتنا في يوم قادم تسليم wolof dafa ni nak la ca mam sa koy jël kon Seydina Cheikh jël na la ca mamam di yonent tibi sallallahu alaihi wasallam bo doona doon tibi nak bi nag sa lepp da kay nduru te yonent bi jikkom len la won muy alquran kon Cheikh limu teunk njabotam sax gennul alquran te mooy alwird at tijaniya manzilam soo ko bëggee xam ilm ci ci wàllu xam-xam ci wàllu tawxid da ngay xool inspiration yi muy am ba même ci awraada bi ak askar yi ñu ngi koy composé xoolal li ma doon wax sànq ci yusalluna ala nabi cheikh ci dégg alquranam mu ni kon salaatu ala nabi boobu comme yàlla daf koo digle man dinaa jël annabi delloo lépp sunu borom mais ci biir salaatu bi damay jël li li loolu war a jur yëpp yàqu-yàqu bi ci jamono pour réparer loolu cheikh jël annabi yu jël alif bi booy wasifa alif bi benn un la ci dégg-déggu xam-xamam mu jàng ci fatiha laam ji ci annabi 30 la ci dégg-dégg alquranam mu def ci 30 astaghfirullah mais ci dégg-dégg xamna na ni istighfar bi composition bi ci nek 30 doy na ci parce que comme astaghfirullah moy produit brut bi mhm. mais savons aussi dinañ ci def mélange boo xam ni léeg-léeg ñu def ci acide parfum pour ak détachant yoo xam ne man man man mën dindi loolu moo mu mu mu mu mu composition bi ba xam 30 doy ci. parce que istighfar bi astaghfirullah al azim produit bi yëkkati allazi laa ilaha illa hu mënoo koo am feneen fudul moom alxayu saabu bi li ci nekk di seetal day dund. alqayumu doole ji mu judduwaale woon moom lay am moo tax mu ni def ko def ko trente nuun gi moo ci topp nga def ci cinquante salaatul fatiha bi ngay wasifa te salaatu ala nabi la ci jublu de mooy inspiration mais comme nuun gi soo ko jàngee dañ koo sedda mm-hmm. te cinquante soo lay doon moom ngay jàng ci la ilaha illallah muy cent waaye boo demee di lazim aussi noonu googu ngay jëlaat rek def ci astafirullah cent def ci salaatu fatihi cent def ci laa ilaha illallah cent mu des baa gi ak yaa gi ah, muy douze mu def ci jawharatul kamal te jawharatul kamal moom moo ko composé bopp mais gis nga jawharatul kamal boobu comme yaa bi annabiyu comme yaa boko boo dañ ko chita ya bobu motax ki manul salat ki manul jawharatul kamal ah ya bi lay multiplier par deux moy vingt mo remplacer ko est mo remplacer ko jawharatul kamal gannaaw ba yàlla ak malakam malaakaam xëy nañu ci toolu yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam woy tamit kep kuy julit nga fek len ci tol ba ta tol bi moy as-salatu ala nabi pour dire Ishara sur Cherna Amadé Tijani. Parce que nous, si nous prenons al fatou al fathu qui est en fait la sourate, al fatou ça nous donne le 519. Mais dans cette sourate, nous retrouvons 29 versets. Si nous ajoutons donc l'ensemble des versets sur le mot fatri, qu'est-ce que nous allons avoir nous, nous allons retrouver le 548 qui n'est rien d'autre qu'Ahmada à tijani Donc c'est à cette personne-là, notre véritable guide et vénéré guide, que Dieu va destiner la salat du Fatih, qui est en fait la salat de l'ouverture, qui est en fait aussi le secret qui est dans la Fatiha. صلاة الفاتح يدلك يوسروا الفاتح لما أغلق ديك حضرة الناسوت أك حضرة الملكوت والخاتم لما سبق ديك أنت حضرة الملكوت أك حضرة الجبروت ناصر الحق بالحق ديك أنت حضرة الجبروت أك حضرة اللاهوت والهادي إلى صراطك المستقيم نك لاهوت دمتي هاهوت وعلى آله نتحقق قدره ومقداره العظيم بموين دم لا يبع لجمعك محمد الموتي موي شيخ دانيو واخني بيمو امي جورم نياري ات القران مي خامل بوبو ييميو am juróom-ñaari ak tari alquran yéemewul xam nga lu yéeme mooy bi muy nekk ak addam roow yi ci la commencé di recevoir telex yi jóge ci yonent bi moom cheikh ci telex yooyu la yonent bi jàngale cheikh xadra ba nan la mel moo tax à l'âge de sept ans déjà cheikh xam na nu alxadratul ilahiya mel jàngal nañ ko code ba ba tableau de signalisation yépp xam na leen kër yàlla da xamuloo ni gis nga du ko jóg du ko jóg nit ñi yóbbu leen ci yàlla kon guur yàlla bile ñépp xam nañ ni tebbi na as bi ci wàllu xam-xam ci wàllu cër ci kaw guuru yàlla yépp te liy wane ni mooy jëwriñ ji jiitu ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy salaatu bi mu tëgg def ko ci maamam muy jawharatul kamal yati man fa aawa tey maay sa moom maay sa maam boo jëra ko daallan li nga doon wuti gisoo ko woon te fekk man maa ko amee fahadaa maa la koy boo jëra ka ailan fa agna ki amul li muy wut amul waaye boo dajee ku la ko jox nag na ko bëggee woon nga am richesse kon nag yow li ma lay ñaan moy delol mbattu bi yow itam ci ci cendal ci candaal kon sayyiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam dénk na cheikh yanwi ndax yonent bi ci lam waxon ni bu'ithu li utammima makarim al akhlaq waye cheikh itam la gor ga wax ni amara an imaamana imamana bitanazzuli li ifaadati al axlaaqi bil wirdil jali loolu mooy xéewal gi mu dikkee mbindeef yépp te mooy wér bi nga xamante ni lu waay bëgg ci sa jikko jag rek danga koy taqoo waaye wu wa amma bi ni'mati rabbika nag fa haddis xéewal lii la yàlla jox ca nga war koo jëriñ yit ñi nag wax leen ci la ko joxee tariqa bi kon mu ngi ko jële ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam comme xam nañu ni mission yaronte bi sallallahu alaihi wasallam du mësa dog nam yaronte bi jëgëne fi ci jëm waye non bi bëgg njabotam mu ngi fi kon faw mu am ku yen yen bi kon lolo waral mu yen ko seutum bi nga xam ni xam na moom yonent bi ni àttan ndax combat bi du jeex fay des di wéy mooy dafa am xeex guerre bu Iblis déclaré woon yàlla bi mu ko ko déclaré te booy fas la yéene dévier ku jëm si ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jël risaala boobu doon na le ko Cheikh Ahmad Tijani Chérif mais bi mu duggee ci loxo moo tax sëñ Cheikh wax ko ni ما زال هدي الله بعد محمد في كف كل مفضل قد حام ما زال هدي الله بعد محمد في كف كل مفضل قد حام gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëdd yu njub bi yàlla tànnoon teg na ko ci loxo képp koo xam ne ca jamono ba nga nekkoon xam nañ ñi ni am nga ngëneel mu ni fa bi ahdi saanil xat mi ahmada sayidi xat jaddadal mawla lana al islam parce que kee moo nekk xatimu nabiyin kii nekk euh, euh, xaatimul awliya mu ni foofu nag bi nga xamee ne ni Cheikh Ahmad Tijani Chérif dikk na ci la ci la yàlla defaat nag li ñuy tudde rénovation tasdir ci wàllu islam ci jamono boobu nag la daje ak maamam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ko ni ko ana murabbika maanaam tarbiya bi nga xamee ni nii moom nga soxla te tarbiya dafay firi ziyaada maanaam dolli tarbiya dafay firi formé mu ni ko li li nga soxla nag ku la ko dolli ba nga mat ci man rek la mën a jóge wa cheikhu ko may sa sëriñ itam waaye ñi nga dajaloon ñëpp am nañu mbaax waaye maa leen gën nag loolu la yàlla def al abam bu di wéeru waay koo wéeru ci man lay wéeru foofu sax la ko waxe ni ko sa nasab nag ci fatima la nasabuka li fatima binti dal di koy jox nak tariqa bi talqin bim ko ko defale symbole la ko defé ci suratu duha bi mu téyee loxom yi suratu duha la don jàng cheikh wax radiyallahu taala anhu ni sama mam bi muy jàng wa duha ne dafa téye sama loxoy yi نينا وهمن ما ودها والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى من بتم دي دوك كي سما بت إيه، سورة الضحى إيه، بمكو سوري مصطفى دي فيلم داني ما ودها ما نجي كينتي يور يور الاخره بيغا خامني والليل اذا سجى تي لا غوديك ادينا جي دي ستني ما ودعك ربك وما قلى سبرم باي ولد ولا مبريز ولا الآخرة خير لك من الأولى لينغ مجي أما جوخ لكوتي ممكن لينغ لينغ جيكون عمي ولا سوف يعطيك ربك فترضى فوفو الشيخ نينا ردول عنو نينا سوى مام يمكوي وحاق من نينا دف مخول ينغل بوبم جمالي بتم كيسو بت نينا نيما ولا سوف يعطيك ربك فترضى موي سبرم دينا لما يبنغني كونتانا te war nga ko gëm ndax alam yajid ka yatiiman fa aawaa parce que cheikh radiallahu taala anhu benn bis ci la baayam faatu ndeyam faatu mu def leen ci ci ci pax départ mu jox ko ko nag cheikh radiallahu taala anhu dal di jël risaala yonent bi salaa sallam di ko doxal gannaaw ba seydina muhammad ame na xatmu risaala cheikh itam amee xatmul wilaaya waaye xam nañu ni tamit li fi nekk ay waliyu ay góor yàlla ci àdduna bile ku ci nekk ak sa cër jiite leen du yombe noonu waaye ñoom ñëpp nag seede nañu ni kii kat doy na leen njiit comme ni yonent bi dayoo yonent yëpp élimaan ñaari silk rek a fi nekk silkul ambiya wa silkul awliya silkul ambiya yonent bi mooy xaatim bi amul werante te kenn négocié woo ko moom dañ ko ci dañ ko orienté obligé ko mu nekk xaatimul ambiya waaw واي سلك الاولياء شيخ انك خاتم بي هو القطب المكتوم والبرزخ المختوم ف... موم لا كان فيكو كل بنيو لي سلك الاولياء اوتوماتيكمان دانيو ديف ديليغاسيون بور سيت بور بروبوزي كومو نيك خاتم مو باني yonent bu moom kenn proposé wu ko dañ ko ko forcé pour mu nekk xaatimul ambiya mais cheikh dañ ko ko proposé ba xam dina nangu nekk xaatimul awliya wala du ko nangu mu bañ mës nga gis ko am fitu ñu di la proposé xatmiya nga di ko bañ mais pas-pasam ak dina ci ak xàmmeem mu bañ ko mu bañ ko ñu ni ko lu tax nga bañ ko mu ni risque yi li ci nekk ci risque moo tax duma ko nangu ñu dem ceeg moom ba nga xam ni cofeel rekk mën na lu nekk mu soog koy accepté donc yonent bi salaa noonu mu nekkee woon synthèse noonu la joxe cheikh nag mhm. radiallahu taala anhu tariqam mu nekk synthèse gannaaw ba mu nangoo cër boobule ci seede bépp góor yàlla ak maamam seyduna muhammad sallallahu képp kuy mbindeef ci nit ak jinne ak leneen mujj nga di ko wut si bët bu set ab mbooloo jóge fu ne jëm ci moom moom Cheikh ngir def ko muccuwaay dafa am ñetti mbooloo yu seet si Cheikh yu jóge ci ñetti quartier ñu agsi ñu agsi ni ko dañu jàq lool ñu bëgg ñëw ci yow ndax nu tëbb ci leeru yonent bi ci sa kanam ndax nun daal ñii ñun juróom-ñeenti ñii nun bopp ak li ñu gis ci dëkk bi ni bone nun nu des ala siraat al شيخ نيلان الاستقامة نينيكو أي نعم مني في هذا الوقت نينيكو أي نعم مني غير ممكن غير ممكن سيدا اللول توقتونا يانجنا يعني نهدينا الصراط المستقيم شيخ نيمانا تولنك عند الدين جي ديجا جلسنا جمتي فولكلور histoire sainte glissé na jëm ci caricature kon li ngeen bëgg mënul nekk nanu seet beneen formule loolu kañan moo ko sañ ci kaw suuf Seydina Cheikh Ahmed al Tijaani daan na togg ak njabootam ni tekk dootul wax waaye bu demee ba ca kanam tuuti ñu laaj ko lu tax mu ne tekk noonu mu xabir moo fi doon jaar si am lu mu bëggoon mu leer ko ci laa doon waxtaanal moom moo tax kooku mbiram ëpp na. mosuma gis mukk mel ni moom xam nga ni. mawdo fi mu toll ku muy daanu ci yow xaal am nga cër waaw te li mu waxal Cheikh Qutbi ala al aqtab la wax waaw Qutbi ala al aqtab gayra mukaddabi id hakada amba nabiyu fa saddiq waaw te bi mu koy wax aqtab yëpp a koy déglu te bu nekkul woon dëgg ñu fàdd ko bañ a fàtte parce que Maodo du mbi fàtte dëgg-dëgg dem ba di daf ko jaaxal daf ko jaaxal sëñ Babacar Si dem na ci lu ne mu wax ko Cheikh wax ni mooy sultaanu Salatin wax ni mooy burhanul barahim moom it jaaxle rek ma ni yéen ngi salit de Serigne Aliou Gueye ni ma noon tey ah ay ndeysaan koo bëgg a xam sëriñ boo bëgg a xam gisal ay taalibe cheikh ku tolloog moom jamono rek def na la taalibe dama jëlale junniy kilifa yi ñu tudd ci kasful xijaab junni yi ñu tudd ci rafaul niqaab wante soo ñëwee fii ci ñi ñu gën a jege ñu ni la cheikh alhaaj omarul fouti mii nga xam ne nii nga ni ko cheikh doon waxe yubdil gawamida lil ula wa yuzilu an an an an kullil muridina saqaama nee yi yi nga xamee ni nii dañ ko daan dañ ko daan denc soo ñëwee ci cheikh alhaaj omarul fouti mu mu mu mu iddil la mu wuññi mu wuññi ñi ñi ñi am problème ñëpp bëgg a egg ci yàlla moo leen créel problème soo bëggee egg ci yàlla te eggoo ci yàlla da ngay mar moo tax sama turandoo suñ kër Si doon ko ñaan fale naan dam aanu maa il wasli yaa rabbal falaq fa najjihi mawlaaya min charril xalaq te wirdi bi mu la jox soo ci naanee da ngay egg moo tax gis nga tudd nañ ko ci biir Maodo egg na xatta tawassala واحتوى الإكرامة قد جيجي شال حاج عمر نيوتي الفاهيمة يروالي نيوتي شيخ الحاج مالي من خمينيني أكرم بخامسهم والسر الطريقي سيطان لما ودوا بابر نك طالب شيخ نينا موم داكورول تي ñu ni yonent bi xulafa om yi ñent lañu falayam parce que mawdo mawdo moo te talibe cheikh la néna yitti bi ñooñu defoon ba liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam man mawdo dina ko def ba liggéeyal ko yonent bi ba su ëllëgee fu ñu toog dina fa toog te moom talibe cheikh la ah xoolal sëñ Babacar si radiallahu taala an talibe cheikh la xoola bala ngaa sori turandoom bii ni afnaytu asbaab alxayaat afnaytu jeexal naa asbaabal xayaati sabab yi ñuy jaar pour xam dund diraasatan jàng naa ko yër ko wa balawtu kulla wasaa'ilil irfaani moyen bu ñuy jaar di ko natt pour xam yàlla nattu naa moyen boobu waaye waqad intaha kullun li xallin waaxidin min an utaalibahu bi kulli amaani nee na benn solution rek moo am ñu ni ma li nga bëgg mënoo koo am ci ludul kii nga xam ne nii mooy sa turandoo loolu moo tax mu saluye ko xut bi مسكي لولو السلولة قطبي أبا العباس يا ابن محمد يا أكرم الأفراد والأعياد أكمم نمو يا قنا التدينيب كم دبار بمو يدم دي أكمم دفكو دون ونانكو فتزودت نفسي بكل بديعة وبدائت إعيعي تبقى على الأزمان. على الأزمان بمي ديبار فركبت نحوك ظهر كل عجيبة من حكمة وملحة أوزاني ديكو جاي وي رفت diko jaay badia ma mantiqun illa waduna taaquli ma ibratun illa waduna bayani amul logique buñ may tegal gënu la suufe sama xel expression bu nek mën na ko déchiffrer waye yoyu mu ko doon won yépp bi mu jakarlo ak ak mom da ko ni misli bi misli kan nam la misli nam la tu qad خاطبت nafs bi ma xoolee ni ma toll ak ni nga toll man daal may maay xorondom yow yaay Souleymane mu sippi yëpp mu sippi yëpp ba won ko ni ko man fi mu nekk nii seet naa seet seet nu ma war a toll ak yow ni nga toll yow daal yaay Souleymane man maa ngi toll ni xorondom kon nag boo may wuyu sax bu ma bu ma topp man fa mhm. ajib bi not fekka laa bi ay ni tahaturi inna tahatura hadatu sakraat te Serigne Moussa moo ma wax ni man mhm. gëm gi ma gëm man cheikh ahmed tijani chérif radiallahu taala anhu man ko jaarale ci sëñ cheikh tijani ci bimu mel ci mom kon asaru cheikh soo ko xam da ngay jël ñooñu xol ku mel ni sëñ aba sall bi ci lu ah am sall ñu mel noonu nga dem ci ponkal yi nga xam ni ñoo jamono won te won ak ak ak ak ñoom ah ali harazim ibn al arabit الدمراوي سيد إبراهيم الرياحي التونسي قال إبراهيم الرياحي التونسي صلاة بيم داف رك تودكو النرجسة العنبرية على خير في الصلاة على خير البرية من الحمد لله القدوسي في في غيب الهابون المتجلي بالأسماء في حضرة الله المعبود في عوالم الملكوت والجبروت والناسوت والصلاة والسلام على من انبسطت هذه المراتب الخمس وعلى كل من آمن به من إنس شيخ منا وخني ريفوليسيون بير لا ndax bi mu ñëwee faas te booba jënd jaam dafa xew te boo jëndee jaam ñu ko noo tudd mu wax la tur bi ko bàyyam tudde dangay dindi tur wa ni ko mubaarak nga tudd léegi mu metti cheikh bu mu ëpp bi yàlla commencé di dawal leeram ñépp wuti ko pour jël wérdi ku mu may wérdi rek ni la ñu sa papa mu la tudde nga ni mu ni la léegi mubaarak nga tudd seetal boobu affaire mujj na boo demee kër boo nee Moubarak téeméerul jàmbur ba nga delloo si ko Cheikh dafa xëy rek tere waa këram bale mbett ñu ni dafa rëy

loxo bu tedd bee ko defar mës ngeen gis nit ku ko mën a defar ku dul yàlla mais ça n'a rien à voir avec le péché xamuñu ko koo xam ni yaa ngi yë yëg ci sa biir loxo yoo xam ni mooy loxo ku tedd ki di netaal ki war juddu mu juddu ba noppi benn bàjjen bu tëxat rek yenn loxoom naan la rus naa rus naa nga jël ko rek sànni ju ko wundu ya di ko xëccoo ah moo tax mu taxaw ca tem li mu ci dem kenn mën na ko nettali kon nag nun am nañ chance kon li may dénkaane di ko dénk sama bopp mooy bi nu Cheikh mayee ci boppam nangu noo ñu ñun itam nan ko topp te mooy li sëñ Cheikh wax ci nahnu awlaadu tijaani min ubuwaabil maani waaw ولنا منه نصيب فوق غايات الأمان جمع الخيرات فينا احتفاظا بالمباني قد دعانا فأجبنا وهو مقباس الزمان جسم الجامع بنيو في جمع الخيرات فينا احتفاظا بالمباني ايو ادنا يبسن كو دجالي جوحلكو léegi lu des téye ko kon téye ko kon nag ku am lu cher dang nga koy téye te moytu nag li cheikh gënoon bañ gën koo ragal mooy alxawdu fil maqaadir mooy xuus ci dogalu yàlla yi moytu xalifaam bi eh, fii ci Sénégal Cheikh El Hadji Malick radiyallahu taala anhu li mu gënoon a bañ mooy parparloo kon nag tariqa bi kenn du ci propagande kenn du ci parparloo kenn ci xuus ci dogali jamono di dox cheikh di wéyal liñ ko jox waaye sa gëm gën jimmi ndefa xëy ni mes kon ñu xam ni fii kenn du fi des ndokk nag ba ñoom duñu fàddu xanaa kay wante comme amul kenn koo xam ne ni yàlla may na la ngay dund ba faw su doon am yonent bi salaa salaam lay doon Cheikh su mission jeexee day dem bi mission bi mission jeexe mu dem mais moyen bi aussi yonent bi sallallahu alayhi moo koy wax ki koy jox moo tax Ali Harazim la ko jëkk a dox te moo ko désigné woon ci dundu Cheikh Harazim jiitu jiitu Cheikh radiyallahu taala anhu mu jóge fa mu jox ko euh, Mouhamadunil Ghali mais bi ko Mouhamadunil Ghali jotee. yonent bi salaa sallam moo ko wax ni ko am na ku ñuy wax umar di ngeen tase ci sama rawdu waxtu yoor yoor dina la laaj ci xisbu sayfi kooku moo amee ndono bi te sel xaj omar jóge fii ci sénégal fekk ali mouhamadunil ghali ci madina cheikh omar jox na ko cheikh omar jox na ko fa hadiya boo xam ni sacoche or la ko jox hëddiya mu téye ko fa deux ans di ko tarbiya ba yonent bi mujj fàttali ko ni ko kii du koo war a tarbiya mu jox ko est boobu moo ko jox euh, euh, euh, alfahima yoro wele dénk ko nag ni ko ki ki ki ki ko wara a doon ñëwagul alfahima yoro wele moo ko jox man Al a mën a joo gis nag xaaral ba ñu ni la yawa ndax jamono ñu nekk ak génération tariqatu tijaaniya tànnee fa koy jiite te mooy doon itam boroom jamono dafa ñuy tànn ilimaan ji yonent bi sallallahu alayhi daf koy teewe ndono li di dox di dox di dox génération par génération révolution par révolution ba jonn yalla tay ji li ma wax xamna sayyid Cheikh ci bopam mi mom tariqa bi moma ma wax maa nga ca Maroc ni ma Moustapha ma kon la bayka mu ma révolutionnel sama tariqa بالله والكتاب ف... ف... ما نيو تي سيد شيخ واخكو كوموني ما بوكو دون ديف تي بان فاصون غاكاي ديف روخنا تامبالي نان خامولو ها تاخنا كون نا بيم ماكو واخي با نوبي موي سيد شيخ تاكات غودي ليله القدر لا ماكو واخ سي لا بروميير فوا ما absenté laylatul qadr mooy wax ma ah, na yàlla def sutura ak tal ba ñu fekkee bés boobule ndax cheikh mi amee alxatmiya wal katmiya ku mu dénk yëfam si jamonoy tey bés bi muy sotal ëpp naa wuute Qui nga xamni c'était l'enfant gâté du ciel demal mamam tol ba xey le héros du ciel ki def yitte ci jamonoom ba ruh yi nekkoon ordinaire mu formé len ba ñu réaliser des choses extraordinaires nañu yalla def ay gi njabot ba duñu yam rek si di ko xana di ko topp di def luy dalal xelam ak it lu koy bégal lii lañu leen indi indiloon ci lenn ci géej gi di Seydina Cheikh Ahmed tiyani sharif il Fatimi ki nga xamante ne mooy saaxibul xatmiyati wal katmiya wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu